ba amatoo dara kon nag léegi yow ci yow da nga dugg ci benn dil ah, boo xam ne de waaw waaw xaa may ma may ma waaw may ma rek kon léegi yow da dem ba dugg ci benn dil moom mooy que euh, ñu jox la koppar pour nga organiser pour nga ñëwaat ak kii pour mën a euh, pour mën a arrêter wax la preuve loolu la kon loolu la non xam nga man du ma fen du may wax dëgg la ci weeru koor la nekk waaw barke Serigne Touba kenn joxuma benn dërëm mm-hmm. kon yàlla bu ma wari man nag borom yi pexe laa maa xam nu may tojee sama bopp ji la liggéeykat laa ba may jógee Louga dama koy wax tout le ñaari ganaar laa fi indi ak benn ëmb gerte di liggéey ña jàngi woon ba ami ay doctorat ay yu kenn xamul ba nu ñëwee li ma liggéey liggéeyuñ ko fi man sama bopp laa gëm liggéey laa xam ba ma bàyyee làmb ji ruiné wu man maay liggéeyaat di dekk samay pexe samay pexe ba am lu ma tëggee làmb du kenn moo ma jox dërëm ba ma ko tëggee. maa am nag sama gëm-gëm mais lamb dafa cher. waaw dafa cher lamb c'est à coup de centaine de millions. diggante bi ngay ruiné. ak diggante bi léegi nii. mais quest qu'est-ce quest qui a été alors. mais mais moi j'ai envie de savoir comment vous avez gagné mais de façon jaayu ma de non waxuma loolu damay non dañuy expliqué. jaay loowu la loolu. non laaj mais samay pexe nag. waaw mais milliardaires yi fi nekk. Mm. milliardaires yi nekk tey Sénégal man bi may am en soixante seize. soixante dix sept soixante dix huit. Mhm. bi may am un million kenn amu ci woon cent mille. c'est mais entre bi ngay ruiné wu ak léegi nii. man vraiment du yow kese ah, parce que finalement au Sénégal dañu gis ni. Mhm. gars yi dañuy jékki-jékki rek am xaalis. man nag da nga naan ne yi est xam nga parce que fan ngeen di jëlee xaalis bi. parce que dëkk bi dafa pauvre man nag man dama ko liggéey dëkk liggéey en plus Aliou non non bu dee daf ko liggéey Aliou bu dee daf ko liggéey neen dafa liggéey bu dee daf ko liggéey kon kay yow ruine bi nga doon wax ah nekkutoon ci yow kon est-ce que ko doon bu mu ne làmb andi ko dara au mais ah. Ah. li ma perte loo mais moo tax mu bàyyi d'accord nañ ci nga bàyyi tey bi may dellu waaw mais li ma toog lépp maa ngi ak samay pexe samay pexe ca dugg moon ci lam xam nga bi ma toogee ba ba ba mën a joxe nag avance nag ba jekku waaw maa dugal ci sama bopp foofu laay ñëw foofu laay ñëw may ma tuuti may ma tuuti moom kay bëgg def tànk may la tuuti may la tuuti dina ñëw xam nga man lan moo ma jaaxal euh, Gaston c'est-à-dire ni waat nga fii ne kenn joxu la xaalis wax nga ne làmb daf la ruiné te kenn joxu la xaalis kon xaalis boobu fan la jugee c'est-à-dire nit ñi loolooy seen problème soit soit dañ la da nga naan peut-être xëy na xam nga lu leen jaaxal waaw leen jaaxal mooy yéen yéen a ngi dund boobu ba tey mënu leen am dara amu leen xaalis waaw loolu dëgg la waaw loolu dëgg la yéen a ngi dund boobu ba tey mu leen jox xaalis am a ngi liggéey mais amu bi. yéen a ngi liggéey mais gisu leen bunt bi. xam nga amu leen dara. il faut nga nangu yow na fu mu jugee. moo xam waa xaaral rek ma ñëw. moo moo xam dama ko liggéey. waaw loolu lay expliqué da may déglu moo xam. da nga bëgg a xam moo ko liggéey. non dé non waxuma sax foofu soit. sponsor yi ñoo la jox ne la tëggal. soit fi nga féetee. ñoo la jox ne la tëggal mais ba tey sponsor mënu kaa may loolu. non bidee bidee bidee retour dafa am ci benn période Gomis. mais sponsor xam nga bidee sax li mu wax dafa li mu dox. doo ma may rek ma wax ko ci li mu wax. non bi dafa am ci période boo xam ne coow la boo mm-hmm. xoolee bi laa ba ji daw commentaire yu bari li ñu wax naan bu leen ko seetaan parce que dañuy divertir mm-hmm. moom mu am fu mu bokk dikk ne dafa réunion toogaat ba mu yàgg indiwaat ay millions dugal ko ci arène bi mm-hmm. est-ce que du dañoo ñëw toog ak moom waxtaan ak moom loolu mooy di bi may wax parce que lamb ji Macky Sall la ko tuddee est-ce que du dañ koy joxe voilà demal Macky Sall yàgg naa ko tuddee lamb c'est pas la première fois est-ce que du dañ ne demal mais dama ni Macky Sall yàgg naa ko tuddee lamb bii mooy xëy na bi septième ou sixième édition bi mm-hmm. c'est pas c'est pas ça tey wax nga wax sponsor waaw mais man ñëpp xam nañ ni Gaston sponsor yi dañ ko yàgg wuyu mm-hmm. man li ma daan am ci sponsor kenn amu ko sama lamb bii li ma sponsor parce que sponsor lan la yéen yaa eu quelque temps mosul am sax benn sponsor yéen benn annonceur daaw leen ko am. léegi gis naa léegi. lu mat fukki annonce mais parce que parce que booy bi dafa liggéey. parce que non ci laa parce que léegi par non pardon dégg nga wax. daaw leen am benn sponsor tey léegi yéen a nga am sponsor parce que yéen nga liggéey bi la. waaw sponsor yaa ngi leen di wuyu parce que sponsor du jël xaalisam di ko def n'importe où et n'importe comment. man. sponsor yi dañ ma yàgg gëm. bi ma fi jógee sponsor yi bay teelu bàyyi. ba ma demee ci football ba sax jaan gubi sëgi ni du ma bàyyi ma fel sponsor yi fekk na ma ma bàyyee toog ma ni teg ñëpp yi jooy sponsor parce que xam na li ma leen di tegal ci taabal ji ak li may liggéey ñoom dinañu ko gis parce que ñoom dañoo xam ne seen budget de communication. budget marketing fu ñu ko def la fu ñu ko def la ñuy wër. ku leen di jox visibilité ku leen di jaayal lanu lanu bëgg gis nañ ko ci man mais loolu bu leen ma ko ñaane ñaata nga ko def ñaata nga ko dépensé ñaata ñaata nga dépensé ci làmb ji ñaata la ëmb seen ëmb seen euh, non non non li la non ah, ah, ah, pardon yow laaju ma la plus de 500 millions may leen li mu laaj mhm. laaju ko nan la def ba ubbi journal Le Mandat ak ñaata la ca dépensé. non man mën naa la ko wax léegi. non non su bëgguma koo xam. parce loolu bari non jour ubbi journal loolu làmb làmb comme à centaine de millions la te da nga ne xam ni kaso xam nga il faut ñu comprendre te. benn affaire moo mooy dañuy waxoon dëgg te yàlla tam. Mhm. Euh, yow da bàyyi làmb parce làmb daf laa ruiné mais pas pas gëm xam naa ni du yow yaa ruiné yow Mm. lamb moo la ruiné parce que certainement say say say say say li nga dencoon da nga ko si def te te gisoo ci dara amul retour yaa ngi dégg mais li ngay dundee am nga ko du loolu laay wax mm. dama ne lamb c'est à coup de centaines de millions waaw ci diggante boobu ak léegi gëw ma ni man Alioune Sow ni sponsor moo la jox xaalis bi yëpp mm-hmm. man gëw ma ko te man gëw ma ko de gëmoo ko gëmoo ko mais non sama sama xalaat la parce que moo xamal la sa langage de xam naa dëkk nu muy tuuti quand même non xamoo ko wax loolu man ni may fonctionné man sama côté ni dëkk bi fonctionné bokkul ak yow ni ngay naa dëkk nu muy fonctionné hmm. en général surtout Sénégal léegi ci diggante bi nga ruiné ak diggante bi léegi nii. Mhm. lamb à coup de centaine de millions la man gëm naa ne yow dépensé ko ci lamb lu bon bon deux cent millions. cinq cent millions nga ne ñaata lañu. sponsor yi question nga may posé da ngay régler ma tontu la. non du régler da ngay régler non dama laajte non man su def lamb damay étude xam naa li may def tëbu ma rek di dugg ci làmb comme toi mais man su may dugg ci ak benn vingt millions rek mën naa ci dugg ci làmb xam nga bi may dugg ci làmb ñëpp dañu la wax ne man damay toog njëkk léegi ci mbër yi ku ci ne xam sama jikko mhm. ma dem gàddu sama cartable taal sama oto dugg ci sponsor yi di wax ak ñoom xam nañ ma déjà xam nañu de quoi je suis capable mhm. dañuy am oka dañuy am confiance mhm. ku ci ne jox ma budget bu bu takku ci sa ci sa budget marketing ñaata la bi may départ mën naa départ vingt millions finir par 500 millions sax. ñaata la ñuy sponsor yi xam ne sponsor yi ñun ñaata la xam du ma wax fii. je pense que je pense que Aliou ñu ñëw léegi ñu ñëw léegi parce que Gaston li ñu bëggoon tontu nañu ko. wax na ko leer na sponsor yi ñoo ko génneel budget